sëriñ bi nee na mi ngi leen di bu baax a baax. Euh, di leen siyaare itam siyaar bu kawe kawe kawe loo xam ne maa ngi ko ci sama xol jëme ko ci yéen siyaar bi nag li ko waral mooy tedd gi nga xam ne tedd ngeen ko rek. Ah, suñ borom de moo ko moo ko waxal boppam xelal naa leen teraanga moo xam ne kenn mu kon nun kenn ku ci nekk foor nga ñun ñëpp foor ndax mag mu day ni yàlla moom lépp moom nu waaye nekk yi mooy tuuti waay sëriñ bi may leen nu may ko tuuti moom mooy jëli kàddu ndax kàddu waaw toog ci jotaay bi naan déglu leen sax waaw ah. loolu war na koo xoolaat Antoine Diop waxatul sëñ Fallou Diatara waxul Mame Mor Mbaye waxul man ni teraanga boobu bu rëy boobu ngeen moom la moom laa leen moo tax ma di leen siyaare teraanga moo moo moo leen mais suñu borom wax ko ak ni mu toll dafa dafa dafa dafa noo jox fooraange. kooku foor nag laa ko waxuma rëy rëy moom mooy nit koo xam ne kii fu mu toll di gonflee ka ma nga baŋee boo ko fekkee këram sax bu yore téléphone dootoo am jàmm ndax jaabante muy jaabante di téléphone ekonomi yooyu yooyu loolu mooy rëy foor nag mooy xam loolu li nga xam ne yàlla wax na ko ci ci yow yàlla moom lépp toll ni mu toll ku mel noonu kat ku mu ne taral naa la taraanga bu gën amul war ngaa xam ne foor nga ku foor nag bis bu set war naa xam ne foor na waaw xam ne foor na ndax boo xamee ne foor nga rek lan la xam si nga war a jaar ndax ku foor kat dafa dañ ko dañ dañ ko wutal yoonam wi nga xam ne ci lay jaar boo xam ne ku fooru doo ci jaar gannaaw di yaa yaa ko defal sa bopp si sa jikko yi ñaaw waaye ku rafet jikko foor gi yàlla defal bis bu nekk nga yokk ba ba ba nekk ca kaw rek kooku nag moom laa leen siyaaree waaye leen dangu de moom a ci xaw a jaaxal mooy waxtaan wi da gudd waxtaan bi gudd waaw ndax euh, wax naa fi bërki démb rek ne man Touba cër bi ma fi am mooy mooy mooy nga xam mooy sa wàll fii ma moom mooy fott suuf waaw sëñ bi wax ba noppi rek ma fott suuf rek mooy moom laa fi am waaye cër bu foor la nag ndax sëñ bi wax ba noppi nga fott suuf foor na lu ndaw kon nag foofu rek laa nekk nit daal bu nekkee bu nekkee foo xam ne fotusu rek ko fa war ñu wax mu fotusoo ko fa kon wax waratu ko man waruma wax dara fi ne déggu bi rek bu diglee ma def yàlla bu ma nekk ci lu may tere waaye lum mu tere ñëpp rek bu fekkee nekkuma ca it boole naa ca am waaw di ko ñaanal moom sëñ Mountakha mu yàgg fi bu baax ci wér ak sëñ Abo Mbacke ak mboolem njaboot sëñ Tuubaa yëpp yàlla bàyyi leen fi te may leen wér ak jàmm ju sax ak suturu sax di leen gërëm nag yéen itam daanaka yéen may wettali nii ngeen waxtaane fii ci jootaay bii noonu laa leen di ma di ko déglu noonu laa leen di dégloo daanaka waxtu bu nekk ci seen télé bi ndax télé boo xam ne ndax xam nga yëf yi itam nag dafa aajee seetlu bu baax man dama mës a jóge Dakar wu di déglu benn waxtaan yàgg na euh, euh, waxtaan yooyu ma ma taal sama rajo di ko déglu waxtaanu xel la ak xam-xam rek mooy Sénégal yi nga xam dañoo yeewu te xam histoire yooyu ñuy nettali rek ci nit ñi di ko di ko di ko di ko di ko waxtaane nga di ko déglu waaye ñoom it nag seen waxtaan bi li muy neex neex dañuy dañuy def léeg-léeg ñu ne gannaaw waxtaan wi toll na fii nu bàyyi tuuti kii mu mu déglu jaaki maanaam def lu mel ni xalam tuuti wala wala ay way dañ ko ciy def ñu kii léegi boobu maa ngi jub bariñe bariñe nag am nañ mburu mu baax mu ñuy jaay ma wax ne bi xam na ko yaa war na mën yàgg nga ma déet mosul léegi bi ma ñëwee ba nga xam ne accident biir Bargny tasanteeg waxtaan wi ñu teg ci musique maanaam di ko di ko di ko noppaloo te xam nga musique bi boo ko bëggatee déglu boo ko coupé bu jeexee ba ñuy tàmbaliwaat waxtaan doo ko doo ko doo ko yëg moo tax faaw dangay bàyyi noonu rek. bu neexut yow ndax loolu kum neex mu neex mu neex ci yow mu neex du neex ci yow loolu nag moo nekk àdduna noonu la mel waaw bi ma ñëwee nag eh, jaare ci kii bi nag dama wut ci yóbbal ci mburu mi mu jënd ci àndaale ko boo maag jëm si Tuubaa loolu man Ndakaaru laa daan ëpp lu may nekk moo ci weer bi nag woo jaaykat bi nag di di di di wax ak moom di waxtaan ak moom di ko laaj ñaata mu naan ma nangam ma naan ma nangam yow xaalis boobu muy def mu ne ma rek sama am na ko xam ne maay maay maay jëriñam ci yoon wi seen ma rek naawee fële rek ñëw fa bopp bi dugal ko ci oto bi ak musique bi loolu bi ne kii dana defe ne eh, cassette laa teg wala maa ko doon déglu rek ma ma ma xam xaw ma kii nag moo tax yéen seen télé bi. loolu it damay def may dal day dale fii léeg-léeg nga toog day jàpp dara di ko dégg ba yàgg am ku dugg si eh, fekk la ci yooyu te nit kumpa dafa dafa bari doole waaw léegi nag bu ko defee nag seen rajo bi wóor na ma ne loolu duma ci du ci dal du dal kenn ndax rajo télévision bi xam nga saa bu ne ci li muy ne loolu moo tax ma ne ni ma leen dégloo fii bu ma nekkee ci biir it noonu laa leen dégloo euh, léegi seen Pastef si ni ngeen di wax sëñ bi ni mu ni mu ni mu ni ci am solo itam euh, mooy mi yéen bu ngeen di wax da di wax mbindum sëñ bi wala ngeen jële ci mag moo xam ne wër leen ne lim leen di nettali dëgg la yooyu dafa am solo nga di ko déglu euh, yooyu daal ci laa nekk moo nekkul ci léegi nag màggal gi li ma leen ci wax ñu ngi ci sant yàlla bu baax euh, wax naa ko démb nee naa leen koo ci xam ne ci bis bi ñëw na tey muy tey mm. euh, bul fàtte jaar ci wetu jumaa ji ci boori kër sëñ Abou Noor man ne leen xam naa nit ñi danañ bari ku ko mën a siyaare jox ko loxo baax na waaye ku ko mënul it nga fexe ba sa diggante sëñ ndax boo boo nekkee ci buntu kër ga ba diggante jumaa ji ak kër sëñ Fallou foofu ne rek li dox sa diggante ak sëñ boo ëppatul cent mètres wala wala cent cinquante mètres ma ba tey loolu baax boo mun boo ko mënti jox loxo fexeel ba sa bis bi li li dox sa diggante moom mu mat euh, cent mille wala cinquante mille sax baax ma ne leen ndax li ko waral mooy bis bi màggal bi wala ci kër sëñ Fall ma ne sëñ boobu mooy sëñ noonu ay emprunté lan nag mënut ñàkk sax ci ci ci oto ndax mooy laaj paas waaye daal li kiy conduire daal kii chauffeur bi daal mooy mooy mooy mooy sëñ fii daal euh, euh, lépp ci màggal gi ak lépp sëñ Fallou mu ngi ci loxo fi ne tey jii bis ko tey nañu ko loolu moo tax waaye nag du du ko du ko du ko fam nag rek te tege ko ci loxoom ndax loolu sëñ Fallou tegewu ko fi loolu fi mu ne bi ko yore ba noppi da tasaare nag fi ko sànni ba fii kon nag loolu rek la euh, te xam naa ne moom mi mi sëñ jox gannaawam ni ci waxtu wi ni toll mate na ko waaw moom mate na ko sëñ boobu moom ndax dafa boole ñaari Baay Faal la lépp lépp yoon wi la waaw kon nag noo ngi leen di sant euh, li ma waxoon léegi nag euh, bu ma sañoon nag kuy ñëw ndindi euh, xam nga fi mu nekk nii ñëw ndi bii ak ak ak fii xarit doon xarit sëñ Fall boo boo ko defee rek def nga ko fi mu ne boole ñu fi nekk ñëpp doon nañ xarit sëñ Fall ndax moo moo moo moo tax ñu mel ñu ñu def ci liñ ci def ak ñu daj ci liñ ci daj sëñ Fallu nag ku ko def ku ko def xarit mu def la xarit keneen koo def xarit sax mu def la xarit waxuma ku mel ni sëñ Fallu nga xam ne day xam biir di xam bi ma ne nag xarit koo xam ne nag xaritu sëñ Fallou nga di ñëw ndindi di dal na nga fexe ba ku la gis bu la xoolee gis ci yow euh, kuy dem dindee ko ñëw ndax kuy dem dindee ko ñëw nag kat waratuta doon koo xam ne ni ko neex mel waaw ndax kon day am na noon boo ni melee tey dem dindi di ñëw te la laaj looy wuti ndindi ndax dindi ku fi ñëw di dem war nga boo waxee rek mu rafet war nga boo jëfee rek mu rafet góor góorgóorlu ci yu mel noonu jikko yooyu ñëpp mënuñu fee ñëw waaye ñu fi ñëw danañ takku te kenn ku ci nekk booy dem boo boo jógee fi barab nga jëm boo demee ci ci barab booba nag yóbbaale ko fa waaw ku ku ñëwut boo demee na nga yóbbaale loolu ci ña ngay fekki euh, ñu xam ne daal xaritu sëñ ku ko doonul sax noonu di ko ji rafet nga war a am waaye rawatina nag ku do ku kuy ñëw di ndekk dem man daal di ñëw di di dem daal léeg-léeg sax nga nga nga nga nga nga ñàmba saale ma ci sëñ Abdou Karim laa seeti woon ba noppi daal boo fa jógee ñu di la ñu di la sikk ak ŋaañi daal kooku daal boo ko defee wax dëgg yàlla ñëw gi ngay ñëw di ma seet du ma xam lu muy jariñ bu baax a baax dégg nga bu ngeen demee na ngeen góorgóorlu di teral nit ñi di leen suturaal ay teqatal yi xew ak ak waxi caaxaan yu ñàkk fet yi bu bu leen ci bokk fu ngeen nekk na ngeen am yaram tegin lewet di di yërëm di yërëm nag ñëpp nag yërëm yërmande moom sëñ Fallou bokk na ci li mën a woon nit ñi mooy yërmande sëñ Fallou dafa bari woon yërmande oh, xeeti wax yi nu yërmande wu ne sëñ wax na ko xeeti def yi nu yërmande wu ne sëñ Fall def na ko loolu rek la fi nekkoon kon nag na ngeen xam ne loolu moo am njëriñ dégg ngi leen di digal loolu yé may may nag da ngeen maa def xarit moo tax ma di digal lii nit boo bu dee sa xarit lu baax rek nga koy bëggal te ko bëggal lu baax nag da nga koy digal loo xam ne euh, lu baax la waaw mu ngeen demee daal yéen ñëpp ngeen fonk seen waajur yeeg seen mbokk yeeg seen xarit yeeg toogaay yi sax nay lewet toogaay sax moo dana lewet toogaay dana lewet dana ñagas waaw fexe leen ba toogaay sax bu mu ñagas nay lewet rek maanaam fu ngeen toog poussière bi du bañ a bari wax lu ñaaw mu ci am li ñuy def sax léegi naa ñi ñu bare bare di wax ci ci jamono ji waaye ñooñu sax bu leen bu ku ci dégglu ci nit wax te neexu la sax waaw bu mu tax nga nga nga nga mbël ko loo xam nag daf koy gaañ de ko amal lu rafet yow nit ki lu mën a mel kooku digganteem ak boromam la wax yow si yoon néew ci waaye ni nit ñi di def di suise nit ñi diw nangam la diw nangam sawara lay dem diw ni di ko di ko di ko dëkkal ci ay ay di ko suise daal maanaam sa sa sa gis-gisu bopp yooyu teguwul fenn te teguwul fenn koo xam ne mënoo mu xamoo sa bopp dara boo dee siise nit nag da ngay wax loo neex rek waaye waaye waaye kenn mënta siise kenn fi ne ko dul yàlla kon daal loolu rek laa leen ma wax leen ko moom gàtt gi li ma li ma jëkkoon wax nag moo ma tënk li ma ne man amatu amuma lu ma wax fii foto si rek moo fii sama cër loolu moo ma tënk bu am